que Watford bu Ismaël Sarr du wacc deuxième division ça sera très très très chaud beneen rencontre bu wax hier à aussi bien qu'il a été blessé pendant tout, tout le long de la saison mais il est revenu très fort mais le meilleur buteur c'est l'international anglais nek fa nga xam te Leicester de Jimmy Vardy moom moo nekk actuellement ci kanamu meilleur buteur fofu en Angleterre di xaar nak le match bu dox choc bi nga xam te di dox ci Chelsea Manchester United ak Arsenal ak ki nga xam te moy euh, Leicester ñu ñu nar a 4 quatrième place bi bi nga xam te mo moo leen qualifié ci li nga xamante ne moom mooy la Ligue des champions comme ñoom dañoo am quota wu comme Italie comme Espagne am li nga am Allemagne am quatre équipes yi nga xam ne qualifié directement ci tour préliminaire ci Ligue des champions du jaar ci tour préliminaire